Dictateur kaddu yi la liggéeykatu mairie bu Kaolack yi tënku ci CNTS amalee seen doxub ñaxtu bi ñu doon amal ci mbedd yi ñoom ñu ngi ñaawlu dagg yi ñu dagg seeni salaire waaye tam télé bi nga xam ne gis nañ ko ci doxalinu mairie bi yaama neex affectation yi nga xam ne ñu ngi koy def ci ni mu leen neexee te teguwut ci yoon ak yeneen i jafe-jafe li ñu yëkkati mooy li Serigne Mboup nekkee ci mairie Kaolack abus de pouvoir yi muy def mairie Kaolack moom instant lépp a fi sauf de l'administration affectation arbitraire yi mi ngi ci biir mairie affectation abusive yi fayeekuwuñ fin février fin mars te xamuñ sax fin avril bii ndax dinañ fayeeku mu am ci plus de personnes yoo xam ne dañu def ponction sur leur salaire six cent une collectivité locale moo am menn mairie Serigne Mbuub rek ñoom ñoo dagg ay salaire am na yeneen syndicat fi nekk mais pourquoi ñooñu dagguñ seen salaire lii métti liggéeykatu mairie bu Kaolack ba tax ñuy sàkku délégation spéciale délégation spéciale lañ bëgg parce que ñoom mënuñu gérer cour des comptes ñi ngi interpellé OFNAC IGE wax nañoo mën def contrôle ci mairie ci doxum ñaxtu bi ñu ànd ci ak liggéeykatu feera yi toog fukki weer ak juróom-ñaar jotuñu seeni peyoor doxum ñaxtu bi ñu tàmbalee ko ci rond orange bi nekk ci Medina Baye ba ci préfecture bu Kaolack way doxkatu ñaxtu yi ci yoon wii ñu yëkkati ay kàddu di ñaawlu bu baax doxalinu Serigne Mboup ak secrétaire général commune bu Kaolack ñuy xamle ne fas yéenewuñ dellu ginnaaw ci seen ñaxtu yi tànk seen jafe-jafe yi indiwuñ ci ay saafara